moom mooy Ndiol Géant ah, buuru loo ah wala borom Sénégal instant yi lu mu def vingt et tey mooy vingt et un final am Ndiol jar nañu. doole siyaar lu bëri doole. barke demo defoon nañ ko dem ñu defaat ko tey ñu defaat ko. ah noonu lay continuer ba suñu bu tëj incha allah si kàttanu yàlla de. waaw incha allah leen compétit di final yu di rëy gars yi xam nga di def jaloore gars di ko kontaanee mais Ndiol Géant ah, yow saison bi yow yow loo si nar. ah ñu ngi santaat da lépp dañuy santaat yàlla avant tout julli si yonent bi santaat suñu ñaari waajur quoi ndax lépp lu ñu nekk rek yàlla moo ñu si bàyyi ko xam nga ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaan xeeb te dolli waaw saison bi nag li ñu si nar mooy def lu kenn deful rek man challenger laa bëgg doon. ku def loo xam ne kenn loo da ngay def loo xam ne kenn defu ko. njool la challenger loolu dégg leen njool la challenger. man noonu laa bëgg a mel dama bëgg a doon challenger quoi. moo tax chaque jour may bëre ndax ama beneen métier bu dul làmb moo tax bu ma sañoon làmb jour yëpp lay am jour ordinaire sax day am. mais ñu gisee ci biir combat njool du arrière njool bu la jàppee da daan jëli soxor boo bëre bi ngay bëre ren gii lan la. damay entraînement rek damay entraînement rek xam ji tëdd heure di yeewu respecté sama bopp xam ne lii si sama avenir nekk ma jox cër bi mat xam topp ma lenn aw ma fréquentation dew ma fenn billaay walaay fu mu dem njool nga war a bëre final ki nga xam ne moom mooy El Hadj Ndiaye Thiatou Aida mën ngeen bëre. El Hadj waaw miinante nañ bëre nañ lu bëri ndax man ak moom ñoo doon poids les zones doo quoi waaw noonu la demee. bëri nañ loo a si a ah, ñu bëre rek xam nga moom moom aw ma doon moom ndax borom baax la te dañuy bëre rek que le meilleur gagne quoi xam nga ku ñu xam ne loolu yàlla moo la ko jagleel ku ñaaka ñu xam ne yàlla moo la ko jagleel xam nga ku nekk ngay lekk xam nga di ñaanal yéen TV TV yëpp xam nga suturaal leen seen TV TV xam ngeen dem gis seen bopp suturaal seen waajur ak képp ku saaj quoi yéen ñëpp maa di ñaanal jaajëf Aïcha toujours ah ñu ngi jàkkaarloo ki xam ne moom mooy El Hadj Ndiaye caatu Aïda borom Zowal di rakku Zal Ndiaye ah te mu ñëw Ndangaan Samu le mars ci lamb Fall production ah. waa famille Fall ah ñoo woote woon El Hadj nga ñëw teew egg final war a jàkkaarloo ki nga mooy jël si mais avant tout ñu lay ziar. waaw ziar naa la ziar naa la bu baax a baax maa ngi lay ziar bu baax a sant yëpp bu a baax. mais El Hadj ñu gis ne yow gëj ngaa bëree tey nga ñëw samp si ñëw rek moo tax ma teewoon quoi mais instant yii ñëwaat naa quoi nekk ci compétition yi rek donc waaw. Elas Ndiaye nga tasam basangal jon génnee ko mu tase Grand daan ko jël bu te loo indi. waaw lamb rek lamb moom nekkul ni daal laa def dara teemalu kenn quoi ku nekk su sa bu sa nekkee da nga koy jël parce que mënu ma sama grand tamit moom dafa ñàkk ñaan quoi sama grand la mais lamb rek nga daan ñi tey su ma ñëwee daan la loolu la demee quoi. mais Elas mos ngaa euh, ko deux mu daan na benn. Ah. waaw kon donc confirmation la. léegi loo loo de. donc comme ma la rek ni ma ko def ba tàngoor laa rek. loolu sax mu ngi si de. waaw loolu la man maa ngi sama saison mi ah. loolu loolu wërsëgam la quoi. ngeen ñoo wax waa Sowal ak waa banlieue bi sax. waaw xanaa di leen saa waaw surtout waa banlieue quoi amu fay. waa Sowal fay na amu seen fay tamit Sowal moom mooy loolu quoi. tout le temps dañuy tout ñoom dañuy ñaax quoi même lu métti métti ñoom dañuy ñaax Omar Ngala Omar Ngala sama grand la quoi sama grand la bilaay wala ñoom Pape gars ma leen ziar bu baax a baax amu seen fay quoi kon Aïcha bonne chance la ok merci beaucoup jaajëf jaajëf Aïcha final le 6 mars 2023 ici à Ndangan Sambou ndeysaan waa Fall famille ñoo fi woote woon ndeysaan ñoo si final de Ndiol Zia bu Bargny ak El Hadj Ndiaye doomu Sowal El Hadj Ndiaye Coota Aïda Gandiaye ca tooy da ngoog ndeysaan rakku Sal Ndiaye borom pande bi sa pegg naa leen ñoom bis Bamba ñoom Enzo Kisito eh la Ndiaye Ahmed Sangor borom sewal doom day Omar Ngala pegg naa leen Aliou Sow gana ko la furik doom day moo daa Diouf ndeysaan Dame Sir Jogo Ndong pegg naa la docteur Firosa borom Palmarin doom day docteur Julio Medun Diouf bëgg naa la ndeysaan docteur Serigne Saliou ndeysaan ni bëggee Abdou Sagne borom jilas denga yaaju ma maak Souley Sagne ni bëggee waa ñoom fo pelelum waa ñoom 100 pour cent cey ñoom ni waa jilas sama dëkk ndeysaan waa jilas ma koy bëggee anun Ndiaye nee na trois trois combats lañ bëree gum mu daan ko mu daan Ndiol Géant doo Ndiol Géant daan ko benn tey mooy quatrième combat bi soit deux deux wala trois un eh Ndiol Géant oh oh Ndiol Géant bi sa ñoom